da ngaa jël alinéa 3 de l' article 27. leeral ma ko rek dama ne da nga jël alinéa 3 mais leeral ma loolu rek bëgg da ngaa ñëw jël ci article boo xamante ni ñeenti alinéa la jël nga jël ci numéro 3 bi. moo ñu intéressé. non moom 1 bi lay jël. waaw déglu rek. man dama jël 1. booy jël damay yëpp mu leer. non jëlal 1 bi dama ne damay lire 1 bi rek ngay sukkandiku. dama ne bi rek damay lire article bi yëpp mu leer. Hmm. pour sénégalais yi xam. Hmm. parce que. loi article dafa am esprit am lettre lan mooy esprit article boobu. parce que loi suñ koy lire dafay am esprit am lettre esprit bi mooy il faut ñu nekk ci réew boo xamante ni président bu fi mënti nekk à partir de 2016. ñaari mandat yu cinq ans nga am. mais les deux mandats c'est ab la constitution de Wade. pourquoi à partir de 2016 date de longtemps. Hmm. c'était déjà réglé. Ah, et c'est pas une nouvelle constitution qui a été proposée. c'est juste une petite révision. de rien du tout. non Assane di nga ma mais quand même dama à partir de 2016. du constitution bu bees quoi. du constitution bu mais on était dans un septennat. on était dans un septennat. waaw mais dans ce dans ce septennat on parlait de deux mandats. on était dans un septennat. les deux mandats Wade la rek déglul on était dans un septennat. quand même à partir de 2016 jóge nañ ci dem ci quinquennat ba pare article 27 président bu mënti fallu Sénégal dootoo ko laalati kenn mënutu ko modifier. ba ak moom. non dama ne ba ci tàmbale ko ci moom non dama bëgg nga déglu ma nga naan ma tàmbale ci moom mais moo ko ci wax waaw déglu déglu déglu dama bëgg nga déglu ma man li may wax man waxuma ay waxi euphorique yi for fodé lii Sénégal liy dugg ci bopp Sénégal lii li li article bi wax laa wax président bu mënti ñëw ci Sénégal juróomi at ngay def mënatoo modifier article boobu def ko septennat wala def ko nangam ak nangam c'est ça qui est important c'est ça l'esprit de la loi ok parce que loi dafay am esprit am lettre la lettre ne peut pas être au-dessus de l'esprit c'est toujours l'esprit de la loi qui est au-dessus de la lettre par conséquent la morale dama ne la morale la morale n'est pas du droit dans l'esprit y a la morale dama la n'est pas du droit la morale grand nag dañuy waxtaan cër nag yow tamit nag la loi la n'est pas source du droit la morale n'est pas source de droit ah bon oui c'est grave c'est extrêmement grave la droiture c'est quoi j'ai dit la morale n'est pas source de droit dans le droit c'est quoi. grand contrat moral. <laughs> dama ne. dama ne c'est grave. l'esprit de la lettre. c'est grave l'esprit de la loi. yow jàngale kat nga de. damay damay tiit sax booy wax. non dama ne li may wax mënoo ko mënoo ko dindi. extrêmement grave mais li may wax mënoo ko dindi paasat. c'est pénible mais dindi ko. c'est pénible. parce que li may wax ça t'arrange pas. mais je ne parle pas avec toi. grand li ngay wax nii amul. je désolé. l'esprit va avec la morale. je suis désolé sincèrement. liiral article. waaw mais au-delà. après tu vas après nga tontu. dimbali ñu tu auras largement le temps de su ma paree man. Hmm. nest pas du moom ngay jox kàddu. après il aura largement le temps. bilaay ma mais liiral ñu article dama ne tu auras largement le temps. ok passal bàyyi de de répondre n'est-ce pas. léegi Adama daaneel s'il vous plaît. donc hmm. pour wax ni ñun li ñuy wax nous l'assumons nous l'assumons fortement par rapport à des dispositions de notre constitution waxuma lu neex nit de. par rapport aux dispositions de notre constitution. mais prés yooyu. président bu ne woon day tey jii day day demander troisième candidature. mais dañu ànd ak. dañu ànd ak moom nit doo ànd ak moom ba pare mu bëgg la ne. nga ne question la di nga ànd ak moom non déglul sama sama sama sama taxawaay. may moom président Macky Sall ne day bëgg dafa bëgg lii te du ma ci ànd ak moom. si le président si le conseil constitutionnel valide si le président dit que je suis candidat et que le conseil valide ko damay ànd ak moom xeex su gañee ma xam ne gañe na su gañewul ma xam ne gañewul ma dem opposition. mais ñi ne élection du am nag. mais attends dañuy nax seen bopp ñu ne dañuy élection du am mënuñu tere élection am Sénégal dans ce pays. ok ils peuvent pas. jërëjëf xamu tax. Mhm. xamu tax ba ñuy nekk ak ñoom nag 2011 mi ngi wax de dañuy nekk ak ñoom 2011 la place de on savait qui mobilisait on savait qui faisait quoi et quoi. monsieur Yanam. non dama ne. on on le savait ñoo doon mobiliser. non dama ne on le savait. voilà dañ doon ñëw tous les jours à la place de l'obélisque di bàyyi suñu jàng di bàyyi di bàyyi suñuy classe di ñëw. Mhm. su président Macky Sall falu woon dañuy dàq. ok d'accord Passane parce que aussi. vraiment bëgg nañu bëgg nañu ñu leeral Sénégalais yi mbir mi leerul topp ñii di wax ci quinquennat ñii di wax nangam kàddu président de la République dafa mel ni boo déggee aadama dafa mel ni kàddu président de amul valeur. waaw non ce qui ce qui est dingue <laughs> leen ma expression bi dingue quoi dingue si à la limite mooy kilifa ba toll nii ak dama ko jox cër nag wax dëgg yàlla ndax damaa am loo xam ne mën naa ko seede danoo toog ci benn bërëb waxtu julli jot mu jug julli ak pas-pas sama xol sedd si wax dëgg yàlla mun naa ko seedeel te jullit loolu rek nga ko mën a seedeel hmm. au delà nag y a les réalités qu'on vit ok ma bàyyi c'était un professeur d'étude jàngalekat. Mhm. donc bu ma toogee gis jàngalekat di wax. Mhm, yokkal gi wax benn. Mhm. damay jiital cër jox ko ko parce que jàngalekat mooy baasu dëkk. mais sauf que bu jàngalekat boobu toogee ne moral dañ koy dindi ci constitution mooy bu yeboo ñu tëj kaye yeeg tëj lépp ba. nanu ba bu kenn jàngeeti école. le droit c'est quoi dans sa quintessence définition. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy lu jub. la droiture. droiture loo xam ni dafa tegu ci yoon. Mm-hmm. qui c'est qui fait les lois c'est par des personnes on les organise on les structure. la constitution c'était qui révision bi kan la Ismaïla Madior fa avec le président Sall. et ses conseils ay nit lañu. waaw bu nu juumee du leen ko wax bu ñu defee mu baax nu wax leen ko. quand les gens des professeurs éminents mhm. ont dénoncé ne attention di alerté président Sall ak Ismaïla Madior ñoo ñëwaat nit ñi mais arrêtez mhm. lii mënatul nekk ce mandat la fait partie sept ans bi nga ko tegee léegi président bi waxaat na ko mhm. Ismaïla Madior Fall wax na ko Seydou Gueye wax na ko Omar Youm wax na ko je parle même pas de Aminata Touré sanu yaay bi yanaa mi ñoom ñëpp daanaka wax nañ ko ah parce que 2016 il fallait coûte que coûte faire voter le oui bu ñu ci génnee après on gère. <laughs> quand des acteurs politiques nous parlent de jeu politique. Mhm. jeu mmh. entre guillemets ça pose problème. ok réew sawaay du mbirab teg diil teg xel ak. non xam nga réew lan la dañoo bëgg a teg sawaay réew xam nga la. Mhm. jub lu droit. Mhm. lu jaar ci yoon. moral à la base. moral mooy defar dëkk. américains yi au début on leur avait pas imposé deux ou trois ou quatre mandats. seen ab xel ba baax ba rafet njiit nag dayo c'est-à-dire tolluwaay. mais bu ñu wàccee ci niveau bi. le mhm. Sénégal Sénégal actuellement xam na la mel. mais ni Dakar mel la mel ruralisé Dakar est devenu lugubre ñu tojate fépp comme de rats. Mhm. après teg ci lan Jakarta yi di pulluler loo xam ni teguwul fenn. noonu Dakar mel. Mhm. mais Sénégal noonu lañ ko rabaissé à ce niveau là. et c'est terrible jërëjëf Paa euh, est-ce que on va on va pas vers l'impasse tey jii. bu ñu waxtaanee mbirum question bi nga xamante ne tey jii euh, Sénégal yëpp ñu ñu ngi ci ñu ngi ci am njàqare est-ce qu'on va vers vers l'impasse ci ci ci troisième candidature bi. waaw xam nga Mass foofu laa dul d'accord ak yéen souvent. Hmm. waxee rek ngeen ne Sénégalais yi Sénégal.